إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi mi ngi tax sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy baax noo ngi koy kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom mooy ki ko jagoo ñu ngi seede seede dëgg ni képp ci sunu borom gindi kooku aji gindeeku lay doon ba faaw te dana mën a tukkoo dëngalool sunu borom bàyyee ak boppam ba mu sànq kooku aji sànq lay doon ba faaw te dana mën a tukkoo gindee mu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi ñuy gindi dellu si waat nañ weneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ulaika alrijal wa ulaika annisa alladina shahida lahum alquranu biltaqdis fi zamanihim aw góor ak aw jigéen boo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf leen a teedeel ak sell ak maa ak mag te na nga xamante ni noonu la yayoo ñu jagleen ko saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain xam ngeen ni mbokk yi waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ci nekk ak waaru ak fàttaliku kéemtaan suñu borom bal kay nag da di nafarukaayu dund ba nga xam ni kenn ku ne ci ñun ak kenn woo mën a toll mu gaaw wala mu yeer nattukaay bi mooy saxaaba ya loo mën a yëg nattukaay bi mooy yëg-yëgu saxaaba ya loo mën a gëm nattukaay bi mooy gëm-gëmu saxaaba ya waaye sooy jaay bëgg yàlla ak bu yenenteem boo jàngee seen dund da ngay xeex sa bopp ñoo xam ni kaanu laa yaxaafuuna billahi lawmata laahim ñoom seen bëgg yàlla dafa yeggoon ci tiitatuñ yedd ak aji yedd waaye bañatuñ ku leen mere wala ukaan aqraba xarib xaalawuñ ku leen bëgg ak ku mën a doon ci kaw suuf ku amum ku am sam koom teel sam koom ci yëpp moom am nañ yàlla subhanahu wa taala aw góorawu ak aw jigéen woo xam ne suñu amul woon ci ngeneen lenn lu dul suñu borom ni kontaan naa ci ñoom mbokk yi loolu doy na sëkk ban cër la nit di wut ci kaw suuf ak àllaaxira bu gënawee borom bi subhaanahu wa taala ni kontaan naa ci yéen te moo ne borom bi subhaanahu bu ko waxoon wax ñu ko yonent bi rek yonent bi ñëw wax ñu ko rek laa sa kay danañ ko gëm waaye ngir loolu gën a am firnde mbokk yi suñu borom daf koo wàcc ci téere boo xam ni yut naa ila yowm al qiyaama téere boo xam ni ngir naa ni ak kontante gi suñu borom am ci saxaaba yi dañ koy jàng ba yowm al qiyaama am naa yaakaar ci képp koo xam ne ngëm yàlla bi ngay woote woo dëgg na ci yow loolu yi nga sóobu gëm nga ko dëgg boo tiimee dund saxaaba yi la ngay jëf mooy ak lot ak dellu gannaaw waaye xeebaat li ngay jëf kon yow doo bokk ci gaa yi naw seeni jëf waaye ñoom kat lan amoon ci mbuusi bàkkaar li muy tuut tuut dañ koo réewal comme ay montagne kon sikki dékku ci ni ci jooy tay bàkkaar yow ci ngay dëkk waaye ñoom kat li ñuy am am ay seede ci danañ dugg àjjana taxu ñoom ñu wóolu seen bopp yow mu gisul yonente bi saa sallam sax xaw ma koo jëm yow kon dama ne inna fi xasasihim la ibra waxtaanee seen dund ak waaru la see nekk ak fàttaliku ak jubbanti ko jàggiwaat waaye defarwaat ak tegewaat ci yoon bi loolu moo tax borom bi baax ñu ay borom yi xam-xam yoo xam ni ah taalif nañ ay téere wattul lu dund saxaaba ya ba da ngay mel ni ku fekkee woon seen dund ci loolu lépp min tawfiqaati rabbina subhaana tey ñoo ngi kenn ci gaa yooyu daroon yonente bi alayhi salaatu wasalaam te màggaay ak mbaaxaay ak ragal yàlla nga xam ne sunu borom takk dale min xayri ma aaya ci téeréem bu tedd bi min almuminina rijalun sadaqu ma aahadu llah alayh ah radia allahu anhum wa radu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان للفقراء المهاجرين يبقى آيات لا يقبل لأن مسلم بقي أو حجلة وقبل سنو برم حجلة لأنكم وبين شرك مريك ويسنو برم ميكا يا الله قم كان نسمع فينتج عليه الصلاة والسلام لوقنا لأي بايد الواقع ndax tax sunu borom tiim na leen ñu def leen du leen soob jéggal naa leen seen bàkkaar lan boobu garanti mbokk yi kun ko waxoon lan moo la wax ana tëdd nelaw waaye dafa mel ni ñoom garanti googu boo leen ko joxee day gën a sonn ci ay jaam yàlla wax ak xam nag noonu rek la war a mën a demee nag ndax ku dem ba mbir koo ñu fàtt la xaddu mel nii day fekk yow kat jaamu yàlla bi si jëmmi boppam dafa miis ci kaw yaram ba mënatu koo bàyyi ndax xam ngeen yonent bi ak li ko yàlla defal lépp ci ay xéwal mu wax afala akunu abdan shakura laa shakka ni kii ku nekk sa sëriñ jàngal la melokaan yii nga yore rek nga mën a yore kon tey ñu ngi keneen ci kàngam yooyee nga xam ni ah laa tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar aw góor ak jigéen woo xam ni commerce bu dox ah client yu bari marchandise mu joogu loolu taxul mu dox seen diggante di fàttali ci seen borom loolu mënul tere mukk ñuy matal seeni azkar déedéet loolu mënul tere ñu koy jàng wir bi ñu war a jàng ci alquran lu commerce bi dox dox dox du tee ñu koy jàng li ñu war a jàng ci alquran lu client yi bari bari bari du tee ñu matal seeni azkar lu soxla yi jàng ci seen kaw du tee mboolem ibaadaat yi lañ war ci bis bi ñu def ko la ko waral mooy yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar loolu dafa am lu sore sore lu ñuy xool di ca tiit loolu mooy bis ba ñuy dajeeg seen borom mu war leen a àtte kenn ku ci nekk ci ay jëfam kon tey ñu ngi kenn ci ñooñu muy zaydu ibni thabit zaydu ibni thabit kaatibu lwaxyi wa jaamiu alquran zaydu ibni thabit kenn ci gën a fës ci ñeneen bind alquran ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye kenn ci ñi gën a fës ci ñi doon dajale alquran ci ginnaaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaari mbiri yii de bu fekkoon dund zay yëpp dañ koo yemale ci lii rek damay wax ni gàcc sa ngalaana zay ndax kat li ko waral mooy amul kenn ci ñun ku tàmbalee ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba suñu joonu yàlla nay tey ba ila yowm alqiyaama ku mën a ubbi mushaf jàng ci lu zay dina ci am wàll loolu haadihi manqabatun azima lii mbir bu rëy rëy rëy la mbokk ñaata junni milliard ci ay kaamil waxuma moo nar am ci àddina déedéet àddina waaye ñaari junni milliard ci ay kaani moo jot a jàll keroog bañ defaree mu xam bi ba tey ba fii ñuy wax tey ci suñu tey seen xamul bu toll ci ay masaaxi kaani buñ ci mës a téye borom bi ca jàng na yëg ni zaydu am na ca pourcentage buñ koy science allahu akbar kooku day di ñëwoon yow wax qiyaam gisut julleen gisut wooram gisut adakaam gisut saraxam gisut xara lu dul pointage dañ koy pointé ci kaani yi jàmbur yi rek maa ngi yaakaar dana la jëg lu bare bare bare bare lu réy réy loo xam ni fu mu tëdd dana ko xaram ndax xelam day dal ndax kat amul kenn ci ñun koo xam ni yaa ngi jàng lu dul kaamil bii mi ngi aju ca dajale ko Aboubacar ga dajale ko Osman ga te benn bu ca nekk day doo nekkoon njiit la nekkte loolu daal ah intilaqan min haada kenn ku nekk ci ñun day daal di yëg ni léegi te benn effort bu nit mën a def ci kaw suuf moo xam effort jëmb la moo xam effort alal la moo xam xelal la moo xam sa yaram moo ca sonn léegi loolu su dee yàlla moo tax nga def ko loolu am na kun la ko pointé koo xam ne dañ la koy fay tey ku la soroy ku nekk nga am sa wàll ndax suñu borom kat laa yudiu ajra man ahsana amalan ku rafetal ay jëf borom bi du meenal la ngóob mukk li ko waral mooy suñu borom dafa garanti ni bépp effort bu nit def te yàlla da effort boobee boo dikkee suñu borom da koo fekk suñu borom ni dalika bi annahum la tusibuhum damaun wala nasabun wala maqmatatun fi sabilillah ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون في سورة التوبة sunu borom mu ne bokk na ci mat ay jëfam moom sunu borom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jugoon di xeer ci yoonu sunu borom ñi jugoon di def ay effort ngir ngërëmal sunu borom sunu borom ne nañ yëpp ni pour nga sa romb ba xiif dal leen wala ñu mar fa wala ñu am fa ay coono wala ñu dal ci seeni noon dal tamit ci lool wala ñuy cor leen fa ay cor wala ñu jam leen fa ay jam sunu borom mu ne loolu lépp yàlla dina leen ko bindal ay jëf yu baax ndax sunu borom di neenal dara ci lii allahu akbar mais duñ jël seen alal dépensé ko moo xam dërëm moo xam ñaar dërëm moo xam junni moo xam téeméer te it duñ daal ci wenn montagne wala wenn tur lu dul yàlla daf leen di fay lu gën a rafet lan doon jëf loolu la ñuy wane mooy kon inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala sunu borom bi nee na mukk ay jëf gis nga lii bu ko nit ci gëmee daf koy dolliwaat courage defalaat ko énergie defalaat ko yëg-yëg soxor yi yëngatu awaatu ci yëngatu ngir sawar ci def aw yiw ndax lam def lépp suñu borom dana ko dégg laa yudiu ajra man ahsana amala ci rafetal jëf ci suñu borom du ko neenal mukk kon mbokk yi su fekkee demee noonu kat kenn ku ci nekk ci ñun war naa daal di góorgóorlu nag jéem a fexe am ba aw yiw yoo xam ne yiw bu rëy la mooy mën a jariñoo ci sa gannaaw borom téere bi day wax ni man de su ma tiimee dund Zayd ibni Thabit dafay mel ni damay tiim ay montagne yoo xam ni montagne tiyaaba la yu ñeel gën aka wax dëgg mooy tekki li ma wax léegi rek kon maanaam bu tiimee dund Zaydu dafay mel ni dafa tiim ay montagne ko tiim yu mag yoo xam ne montagne bu ci nekk jalub tiyaaba la ñu naan ko bii Zaydu moo ko moom wax na dëgg ndax loolu mooy li ma tudd sànq ni bépp mushaf bu ñu fiy jàng Quran bi ñuy jàng Zaydu am na ci pourcentage ndax moom lañ xam doon la rek kon Zayd ibn Thabit mais yi am mi ngi noonu te it bokkoon na ci gaa yu sell yu baax yooyu nga xam ni ah ñoom kat amoon nañ ay gënee ci jamono yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom mooy cheikhul muqri'in wal fardiyin mufti diyaari madina fi zamanihi jàngkati alquran yi duñu lim seen sëriñ mukk fàtte koy wala dañ koy jiital miraatkat yi miraatkat yi saa bu ñuy miraat rek saa bu ñu la tegalee masalam miraat rek li ko sel bi njëkk a def mooy zaydu ndax li ko war a mooy yonent bi nee na alayhi salaatu wa salaam xeer mi ki ci gën a jekku miraat mooy zaydu moo tax Omar ibn Xattaab doon wax ni ku bëgg a jàng miraat ci jekk ko demal ci zaydu mukaal kon bokk na ci ñi nga xamante ni Omar ibn Xattaab daf leen a wóolu woon lool firnde mooy Omar saa bu jugaan jëm Madina day woo Zayd ni ko kaay ma dénk la dëkk bi ndax boo fekk na moo nekkoon amirul muminin moom Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu wa arda Zayd ibn Thaabit wóolu guñ ko wóolu woon nga xam ngeen ni kaay da jëlee alquran sala wóolu ma deel ndax sunu sànni sàcc mooy téere sunu borom bi kon kóorte te julit ñi amoon ci moom boobu rek doy na ci firnde rawatina Umar ibn Xattaab daf ko doon dénk dëkk bi muy Madina waaye ci xaswatu fële nu mu tëddi Yarmuuk li ñu andee màng mi borom xam-xam yi dañ ko ko jox ne ko yow mii séddale ko nga xam ngeen ne ku ñuy séddale loo day fekk nga nekk ku maandu moom nag yàlla da koo nag koo bàyyam teel a faatu lool mu dal di nekk ab jiin yaroo ci ron keppaaru yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñor ga nag ak muus ga ak yeewu nekk te boo fekk na mi ngi am fukki at ak benn misaal la woon moo xam ne bindkat yi si yére yi dañ koy lokkalante keroog rajatu badri rasatu badr muy xeer bi nga xam ne moom la jullit njëkk a xeer moo fekk na Zayd dafa tuuti lool ak booba ci ay at borom xam-xam yi dañuy daanaka fukki at ak benn wala fukki at ak ñaar ndingi la ko soriwul keroog xasat badri day daal di ñëw taxaw ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sëppi sëppee ko wane dooleem xam nga loolu nag amoon ngeen ci saxaaba yi gis ngeen ci Raabi ibn Xiddiid gis ngeen ci Abu Saïd al Xudri gis ngeen ci Abdullah ibn Amar gis ngeen ci Seydou mi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni romb na ma di ko nettali ci dàrt yi maanaam man rek Uhud dañ doon def ay école ko këppi këppi ah comme ni booy def ci entraînement ngir dem jihaad fi sabilillah ngir bëgg yonent bi jël leen te fekk booba yonent bi dafa tur benn plan boo xam ne maanaam ci néew ay at doo def ah defe naa yéen a ngi fàttali ko Raafi ibn Xiddiid ah akum moroomam moo xam ne teewlootuma ndax Abu Saïd al Xudri wala keneen la yonent bi tànn kenn ki bàyyi ki ci des ki ci des mer lool mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam kii nga tànn su ma lay dem man damay dem mu ni ko lu tax mu ni ko bëri ci démb bii bi ñu songoo maa ko yëkkati doon ci suuf maanaam ñoom loolu su amee lenn lu muy teggale mooy kon ñoom dem jihaad daf leen a jaraloon lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam Zayd daal di ñëw ci kanam naan ni ko yaa rasul allah idan li an akuna maaka ujahidu aada allah yow yonent yàlla bi jox ma ndigal ma nekk ak yow ànd ak yow di jihaad di xeex ñi nga xam ne ñooy noonu suñu borom yonent bi saa sallam fa nadara ilayhi rasulullahi nadarata sururin wa ijab وطيب خاطره ثم رده لصغره يدرك خالق خالق قيام xam ngeen ni fakal ne da lay xool saxaaba yi xam lim dara wax moom la moom la Kaab ibni Malik doon wax ñu ni ba ma tànnee ca tabu ñu ni ma ñëw xool yonent bi ni ko assalaamu alayka yonent bi siggi xool ma fa tabassama tabassumal mughbir mu ne yonent bi xool na ma muuñ waaye xam naa ni ji muuñ du muuñu ku kontaan waaye muuñu ku mer la kon saxaaba yi comprendre ñu ne yonent bi loolu la ndax kuy muuñ moom ku ko jël da ngay comme ku kontaan la waaye yonent bi alayhi salatu salaam daal di xool Zeydu xool ak kontaante lool xool ak kontaante lool waaye bi mu ko xoolee xool ak kontaan ah daal di koy delloo nag ni ko yow kat gone nga yow duma dem ci xat fi sabilillah fa aada algulaamu xajinan wa ummuhu aktaru xazanan minhu xale bi daal di dellu ca kër ga ngay saan amu jiis lool am lu ko mett lan moo ko mett ndax yonent bi alayhi salaam da koo delloo ni ko doo dem jihaad allahu akbar mbokk yi kenn ci ñun ku doon waaj jëm ci barab boo xam ni fa lañ war a mën a daggee sa nopp bi ah lukki sa sa bët bi ah dagg sa sa tànk bi ah dem na ci guy yooyu yëpp ngay imagine war naa mën a am nga préparé dañu demee ne ñun la toogal maa ngi yaakaar ni ku doon ñëw dañuy kontaan alhamdulilah rabbil alamin nga def comme li waxe nag nga def comme yow waaye Ali ibn Abi Talib ba ko yonent bi ne yow laa fi bàyyi ci dëkk mu ne ko man man ke doo bàyyi ci dëkk may toog yi ak jigéen ñi noo wala mu góor ñi nag xanaa jigéen la allahu akbar man du ma toog ci gone ak jigéen ñi de yonent bi wax wax wax mu ne ko du ma toog damay dem man dinaa toog ci toog ci jigéen ñi comme góor ñi dem yonent bi ni ko xanaa doo gërëm nga nekk ci man bos su ma xaaru ma nekkoon ci Moussa ànd ak nag yonent bi am sama gannaaw loolu moo moo moo moo jabru xaadiru alimam kooku mooy xanaa doo gërëm yàlla def la comme ni mu defoon Haaruna ci Moussa nga xam ne Moussa buy dem fenn Haaruna lay dénk njaboot bi kon am na ngërëmal Moussa waaye kon Ali am na ngërëmal yonent bi ànd ak nag Haaruna yàlla def na ko yonent waaye ab yonent bu am sama gannaaw bu amoon ab yonent bu am kon Ali lay doon ndax mu rappalaatee ko loolu waaye nag day la na dural nabi yëpp aaj gis nga de yonent bi alayhi salaatu salaam def na loolu ba noppi aw ca yow tamit di teg ah naa fekk yi dikk naa laa dee tàppal bi nga doon yow tàppal bi nga doon dama ne ñëpp dem nañ geer di ko di kere baalu tàppal bi nga doon dañ ko wax rek wuri futal aw xamal dem xaaral topp yonente bi alayhi salatu salaam bi mu demee yonente bi yonente bi ne ko yow xaaral dama la bàyyi woon ci dëkk ba mu ni ko aan kay waaye nit ñaa ngi naan nangam ak nangam mu ni ko ali nit ñi li ñuy wax du ko baale man li ma wax moo kon dama koo xaar ali doobu dëkkal ngeen ko kon yooyu yëg-yëg lam lay wan mooy ñii fa lañ gëm yàlla lépp la base bi rek du dara amul fekkee yonent bi mbaa dañ koo fekkee ngir base bu ngëm-ngëm rek la baat bi gëm gëm gis na bul imagine mukk na lii xëy na fekkee yonent bi wala jamono yonent bi baax dëgg la yooyu lu am la waaye nekkul ay mbir yoo xam ne mooy sabab bi tax lii rek mën a am déedéet waaye nit ki yëg-yëg yooyu ak ngëm-ngëm yooyu ba tey ay nit ñu koy am di def ay kéntaan la koy firndeel ci boole mooy boo jàngee sirat salaf di nga gis ñett téeméeri at ginnaaw yonent bi alayhi salatu salaam comme ne ne gisuñ sa saxaaba ya ah di def ay jëf yoo xam ne buñ la leeral ne diw yi saxaaba la bu tuddee turam nga defee moom te fekk du ko moom yëngu ko waaye sori na ko lool xale bi dellu si Seydou amul njàqare lool day saan amul tiit lool waaye yaayam moo ko gën a amul tiit ndax yaayam li mu doon dëgër mooy doomam bokk min al mujahidin taxta raayati rasulillahi alayhi salatu wasalam allahu akbar xam ngeen nag dafa am ay ay ay ay sabab yu mën a tax nit ki mel ni mel am na dafa may sabab yu tax nit ki mel ni mel am na wax bi mu doon wax bi laaj bi joo xam ni jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel mooy góor dëkk mu raw ak maasam rek xamal ni jigéen a ko gannaaw day nekk yàlla baa mu nekk soxna góor góor gis mu raw ak maasam xamal ni jig mu nga wéeru ci jigéen day nekk yaay yaay joo xam ni yaay joo ragal yàlla la say kër bàyyam soxti fa lam am lépp ba jeexal xaar yàlla wërsëgal ko loolu wala nga gis koo xam ne yàlla da koy wërsëgal soxna koo xam ni daf koy jox li mu am lépp comme ni Xadiija joxe woon yonent bi li mu am lépp alayhi salaatu wasalaam mu doon nekk da ndeysaan di nga nekk nit mu raw la tuub na te gisoo benn mbir ci biti nit la waa yër lu tax mu war laa mën a raw fekk ma nga la rawee ca yaay wala boog mu raw la nga xool te gisoo benn mbir bu tax mu war laa mën a raw te fekk ni nga la rawee ci soxna loolu rek ba man jar na bara am ku essayé rek gis li may wax kon yaay ji am lu ko metti lool ndax li mu doon bëgg mooy doomam jihaad fi sabilillah bi loolu moom min xëyri mara nekk li naa ko ci dëgg salaf ñoo xam ne dañ doon ñaax seen doom bal sax nag kaala di ngay kaalaw booy dem jihaad sa yaay moo la koy kaala pare ñaanal la yàlla na xam ne nga di amin allahu akbar mbokk yi xulil doom ni mu neexee nga xam ni ah ka annama xuti amin al qalb comme dafa mel ne dañu dikki sa xol bi dagg ci dara génn allahu akbar xoolal doom yi mu neexee rawat na doom ju góor nga xam ne mooy dem jihaad man laa yore sàmm la di la dimbali nga dem ba war a màgget mu aw la dimbali la ba nga faatu mu rafet na denc la di la ñaanal xool yooyu ni mu neexee waaye am ngërëmal suñu borom tax na nit ki dootul gisati yooyu dafay ñaan borom bi subhanahu wa taala doomam bi demee jihaad naka def na faatu foofu kon Zaydu mi ngi noonu radiallahu anhu wa ardaa waaye nag mbokk yi jullit yàlla daf ko utalul benn bunt ba su demee jàllul rek mu ni kon jeexal na xaar ba tëdd nelaw xaar bee déedéet danga am koy jihaad te bu demoo jihaad yëgal ni am na yeneen jaamu yàlla yu lay xaar yoo mën a def jëlul jihaad tey bi mu gis ci kër gi diisoo ak yaayam bi mu diisoo ak yaayam gis na ni am na beneen porte bu ubbee bu dul dem jihaad te su ma ko duggoon tey kenn du ma ko tere mooy ku teeku léegi la xataayu fa téene nekk ab borom xam-xam allahu akbar ah léegi te loolu yaayam moo ko ko kanam ah ak ak yàgg am na Bukhari da yaayam Ahmad ibn Hanbal da yaayam Ishaq ibn Rahawi da yaayam imaamu Malik da yaayam imaamu Shafi'i da yaayam ah Muayyad Abi Sufyan da yaayam koo xool rek yaayam rek def loolu tax mu mel ni mel ngeen yaay yaay Sufyaan As-Sawri mu ne Sufyaan As-Sawri tey loo jàng mu ne ko sëriñ bi bindal na ma nangam ak fekk xale bu tuuti la sëriñ bi bindal na ma nangam ak nangam ak nangam Sufyaan wattal nga mu ne waaw mu ne ko kaay tari Sufyaan ñëw tari ba nopp mu ne ko Sufyaan li ngay jàng mbaa yaa ngi koy jotee Sufyaan ne teg li ngay jàng mbaa yaa ngi koy jotee mu ne teg yaa ngi nekk lu nga yëg ni li ngay jàng boo ko dul defee alxanda la lay jural waaye du la kenn Soufiane mara dama ne ko Soufiane maa ngi fekk nekk bu ci wuti xaalis comme ni xale yi teel a def man dafa njàng wuti xaalis Soufiane ne teg mu ne ko Soufiane bu ko xel nekk ci wuti xaalis man sa yaay am naa métier mu ràbb maay ràbb di la dundal yow dama bëgg nga nekk koo ndox yi xam ngeen lii nag wax dëgg yàlla su sa yaay def la ko war a kër bàyyam ba noppi nag leen nii wax dëgg yàlla war ngaa mën a mel ne leen la wa hakada kaanu min qabl ah yaa ji daal di koy dalal mu daal di toogu nag ci yoonu xam-xam ndax moom nga gis na ni maanaam yàlla may na ko xel moo xam ne dafa gàjjeeku te nag ci lool mu daal di toogu nag ci yoonu xam-xam yaayam daal di koy jàppale kanam loo ko ci daal di ŋàmp ci loxoom daal di koy yóbbu ca borom xam-xam la زيد بن ثابت هنا أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم أتي أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم إن أنجي ينتبه عليه الصلاة والسلام من مقدمه المدينة بمن في مدينة فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار من ينسى تلمسيدي أفضل لبوه أنك بني النجار لبوه وقد قرأ بما أنزل عليك سبع عشرة سورة yeneen bi gën a jiitee ci rek li muy tuut tuut fukki saa ak juróom ñaar def na ko mokkal ci alquran loolu nag buñ ko dégg tey jii rek nga defee ne lu simple la simple jamono jooju de jamono ji kaa ngi am affaire yi gaa yi di gaaw mokkal alquran bokk na jamono jooju de mokkal juróomi saa rek ndam la woon jamono jooju la ko waral mooy alxaji doon doog wàcc la ko waral mooy kaamil amul daa tasaaroo la ko waral mooy jàngalekat yi bariwuñ comme ñii yonent bi rek moo doon jàngal alayhi salatu wasalam wala ko mokkal sa sa morom maanaam obstacle ne sa kanam dafa bari woon lool loolu yonent bi alayhi salatu wasalam ni ma jàngal muy fa qaratu ala rasulillahi fa ajabahu dalik yonent bi ni ko jàngal day du jàng yonent bi diglu jàng ni tax yëpp loolu nag yàgg naa am nga xam ngeen yonent bi romb na bu yàgg dégg na ko xale benn xale bi nodd di sabote dégg di laal benn xale bi dégg di laal rek di nodd eh kon daw bi ne ma noddal leen di sabote nekk di sabote ba dafa neex la maanaam baat bi dafa neex lool yonent bi waaw kii nodd ku nodd ñu ne ko kii kay nodd kii kay day sabote mu ne kii kay sabote wol leen ko mu ñëw nodd du ma ne ko abu maxdoora la yonent bi fëgg dënd bi daal di koy ñaanal xal ko mu nekk nodd kon yàgg naa def loolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga noonu la demoon ca Amri ibn Salama ba mu gisee ni faa yi boo ci laaj ay ñaari gaar ñetti gaar ngay mokkal ñu laaj Amri ibn Salama ba doon juróom-ñaari at yi nekk te mokkal na lu bari ci alquran ñu ne ko yow yaay imam yow yaay imam kooku dafa xaraa yi sukkandiku te loolu mooy li gën a dëgër insha allah wane ni mat na imam moom moo nii mooy gën a juróom-ñaari at bu fekkee defar nañ ko ba mel na mu war a mel xam àtte julli te fekk moo ko sus nag ndax moo ëpp ci alquran lu ci mokkal nee na bi loolu amee nag ci la ko yonent bi commencé teg ay baatu nag te loolu daa yi bu ne war na koo bàyyi xel maanaam képp koo xam ne ab daawakat nga ab jàngalekat nga ab yarkat nga du ñàkk da nga teel ci mbooloo ni ay benn benn yoo xam ni sa natt lim lay jox mooy ñii war nañ mën a abonné loolu day am nag loolu ñi ko xamul ñoo ko xamul waaye yarkat yi ci xam nañ mais di nga xool ak gone muy tëpp tëpp rek donte sax ñu def yëfi gone bu yeboon sax ñuy xeexaat kat ñu koy dóor muy dóoraat sax ñu di gone la waaye du tee da nga téen ci moom alaamaatum na jaaba mooy luy waral ni kii kat ku ko jàppale dina réussir dana baax loolu day faral di am léeg-léeg bu ko defee yeneen bi daana ko def saxaaba yi kum seetlu ci yow yu mel noonu daf lay teel a farataale yéen ko xoolee gis ni zagira booy bi dafa ñor xomm muy mokkalu kaay yi ci la ko yeneen bi ne ko kaay ñu ñëw mu ne ko yaa zaydu taallam lii kitaaba yahud fa inni wallahi ma amanukum ala kitaabi allahu akbar yeneen bi woo ko ñëw mu ne ko téere yi nga xam ne jiit yi ñoo ko yore moom laa bëgg nga jàngal te loolu mooy jàngal seen làkk rek jàngal seen làkk ndax man kat aw ma confiance ci ñoom ndax ñoom kat buñ jéema man seen làkk mën na ay dëkk yuñ jël dugal ko suñu suñu yëf yi muy lislaam qaala fataallamtuhu fama mada li nisfu shahrin xatta xajatuhu nee na ci laa dal di dugal sol saw daal pour di jàng seen làkk mu ne avant muy am genn wàllu weer muy quinze jours maîtrise na la loolu nag dëgg la farlu bu mat sëkk waaye nag di sabab duaa u nabii sallallahu alayhi wa sallam la boobu nag man dafay génne ay fawaid jamma yu bari bokk na ci fawaid yooyu mooy li ma wax daan nit ki dana seetlu ci ña muy yar ñun jàpp ni ñii ko ëllëg ëpp nañoo sàgganee mu jéem leen a dànkaafu ngir ëllëg ñu bañ a nekk ñuy jëfandikoo seen ñaw xel ma ci taay taay waaye ñu nekk ñoo xam ne ëllëg kat ay borom xam-xam la ñuy doon kooku waaye ñaareel bi mooy léegi nit ki du yem ci wenn làkk kese déedéet nit ab julit war na yem si wenn làkk lu gàtt gàtt gàtt war laa weneen làkk woo boole li nga yaay ngir ëllëg rawatina nag làkk yoo xam ni dañ koo soxla ci jamono jooju ñu toll nga xam ngeen yahud yi surtout madina yahudu xaybar yahudu bani xuraybata yahudu bani xaynuqaa yahudu bani nadir ak ñi ca bise nit nga xam ne ñu féqoon l'islam bi jàpp naa ne ñii moom seeroo làkk moom benn suñu ko ñoom kooku benn la benn bi nag mooy jàng làkku jàng jënd dox saa yëpp la jënd dox saa de Zeydu nekkoon ay at dikkati daf naan day jàng làkku jàng déedéet ay fan la ca def rek def jox ko fulla ak bàyyi la loolu mooy lan mooy alquran mooy sa base sunna mooy sa base làkku arab mooy base ba bu jàppee nag yeneen làkk wooy jàng wu nekk mën nga koo jox ay quelque su sa heure waaye bul ma jox kay wax ko déedéet loolu bu jàng si déggee benn bi nag mooy daal ci déggee ni kilifa ku nekk war na jël lépp yem war na am yoo xam ne ay nit la koy sant ni defal ko ko ndax yonente bi laa fekk ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xudwa bi jël na nit ni ko jàngal ma laaj nangam jël nit ni ko yaral ma nangam jël nit ni ko féeteel ma nangam maa ngi ñëw muy diw séddale ko ila axiri yi kon ay mbir la yoo xamante ni ña nga yàq yeneen sédd ay cër yuy tax ñuy dem loolu bu am solo yéen si déggee ba léegi tamit ñi gis nga mbooloo bu ñu dajee ñu ñu annal fadla bi yadillah ngëneel yàlla moo koy jox ko soob maanaam diw moo fi jiitu wala diw moo fi topp wala diw moo fi mag wala diw moo fi ñaaw wala mu xam ko loolu dana nag léegi yooyu ñuy tànnee yooyu ay mbir la yoo xam ne amul li am mooy yonent bi dana xool kam jàpp ni diw ñii moo man nangam mu jox ko ko loolu nag bu amee suñu société yi lan la commencé di kañaan kañaan mooy tàmbali di mooy yonent ba muy jox li Abubakar na la fa Omar na la fa Ousmane na la fa Ali na la fa Abu Ubayda mi yonent bi moom aminu haadi umma ci tànn ñi ci wóor ci xeet yi ma nga fa Ousmane ni ma laa koy rus ma nga fa ak ñeneen ak ñeneen xaaral jaar ci suñu borom bi ma nga fa waaye yonent bi dafa seet nangam lam jox lam yayoo mu jox ko leneen ba ci mujj mooy am na yenn xeeti baat yi yeddaange yoo xam ne kilifa waru koo waru koo bay bu mu ko bay mooy gis nga yonent bi su doon sédd ay sentiment nan diw mi su ma ko joxee diw ndax diw moo ko gën mag wala ci ay at wala moo ko nangam dina wax nangam yonent bi ñi ñu doxale du ko doxale waaye nag jàngalekat la woon bu mën a yàq boo xam ne ak dundam lépp ni ñuy istinbaatoo ci alquran ay fawaid noonu la ñuy istinbaatoo ci ay xadiisam ak sunnaamam jàngaleen di ko jëriñoo dégg mu ni ma daal di jàng téere boobu ci lu mat fukki fan ak juróom am na beneen riwaaya dani yéen bi ne ak ismu sariyaaniya laatu sariyaaniya est ce que maîtrise ko kuntu nga mu ne ko déedéet yéen bi ne ko fataallamha demal nga jàngi dama koo soxla mu ni fa fataallamtuha fi sabaati ashara yawman mën di koy jàng ci fukki fan ak juróom ñaar loolu nag dëgg la yonent bi ñaanal na ko waaye nag ak farlu ma la def ndax gariwaana moo nit koo xam ne jub na jox farlu benn mbir rek borom bi ubbil ko ko ay fan rek mu daal di koy mën day ibne saabit nee na yonent bi daf maa digal ci beneen riwaaya boo xamante ni imam Tirmidi moo ko ne ci bu wér la mu ne an ataallama kitaaba yahud mun naa jàng téere yahud yi mu ne yonent bi saa sallam nee na man de wóolu ma ne woon wóolu ma leen suñu téere bi nee na rombut ci man lu mat genn wàllu weer lu dul mën naa ko comprendre ko fab nag léegi lettre bu jugee ca ñoom ñëw ci man te seenu laaj maa koy liir lu yonent bi bëgg a jëlee ci ñun yóbbu ca ñoom mën naa koy gis loolu moom buur yi sax dañ ko daan def buur yi da ngay gis koo xamante ni maanaam làkk sànga maîtrisé wu ko waaye day gis koo xamante ni ab arab la ndax gis ngeen lettre yéen doon bind buur yi lettre bu ñëw nekk arab rek am na ku ko war a ñi ci ñi nga xam ne ñooy dagg yi kon tey bi mbokk yi ku màgg la beneen bi ci des ci lii wane ak màggaayam mooy kaatibul wax yi mbokk yi alquran muy dëstuur bi gën a rëy bu jullit ñu yore ak ni mu màggee ak ni mu teddee ak ni mu sellee di waxi sunu borom ak ni ko wóoroo ak ni ko gëmee ni ko fonkee ku ñu tànn ni ko yow yaa ñu koy dajaleel pour di ñu ko bindal kooka laa sakk ne bu ko xeet bi defoon sax ku rëy ngay doon rawatina ba ko ki ñu def xeet bi defee muy yonente bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw ab diir yonente bi gis ci zaydu ak mën a mokkal ak baax yéen saxaaba yi nag loolu la ñu siil tànn woon ba ñoom léeg-léeg sax ñu lay nekk ni seen mën a mokkal da ngay découragé nag moom dëgg yàlla loolu laay wax gars yi man leen nag moom bu ñu la ko nekkee daal dafa xaay mu jàll boo ko bëggee nekk def ay commentaire da ngay découragé dootoo defati dara yow ndax ñun koo xam ni xam nga ñoom nag comme ni ma koy waxee maanaam borom subhana jamono ji nekk dafay jagleel nit ñi lan lan lan yeyoo xam nga jamono yi Moussa la ko gën a jox muy ak jabar suñu borom jox Moussa lu gën a rëy jabar jamono Isa la xeer mooy tëgg suñu borom jox Isa lu ko gën a rëy moom mu fekk bu dee mu raay ko mu jub dafa naa nekk tey mënul loolu waaye jamono yi comme rek jamono yi Cheikh al muy koy nga xam ni nit ñi mën a wax lan toll mën a wax mën a mokkal la mën a wax mën a mokkal nga xam ne yaakaar na xadisu jaabir ci xaj rek xadisu jaabir ci sifat xaj nabi ak xadisu Barra ibn Aazib ci janaaba boobu xadis moom waxuma la waxuma la waxuma la dégg ko rek benn yoon mokkal ko waaye dama ne kuñ ko joxoon si ñun ñu la mokk xadis bi lim bëgg nga mokkal ko di nga ci ami fan mu doog a mokk segal fekk jaa gën a jàmbaare ko kay ndax guddaayo yonente bi day wax benn wax benn yoon la koy wax rek gaa yi ni ko def gis ngeen xadisu Masiix Dajjaal Masiix Dajjaal xadis bi muy bari jigéen lim guddee waaye benn yoon la koy di wax rek saxaaba yi mokkal xaar ñun daal dafa mel ni que la loolu xalaata la wala ate pour man kéemtaan amu ci dëgg la kéemtaan la waaye ci wet boo xoolee kéemtaan amu ci la ko wax mooy jamono bi nekk suñu borom dafay jox nit ñi jumtukaay yan soxla jamono jooju waxtaan bi enregistré amul rajo bi enregistré amul satellite amul téléphone amul jumtukaay yi mën a firi wax yëpp amul kon suñu borom pour mu garde diine bi dana dajji ay xel bañ gën a gaaw gën a sophistique gën a baax ay rajo ko enregistré nangu xalaat mu jeex jamono bañ demee ba portable yi ñëw jumtukaay yi ñëw téléphone yi ñëw suñu borom nëbale xel yi ñu ne léegi daanaka man xaw ma xaw ma bopp jën yi la xaw ma dina naa dégg naa loolu gaa olof di ko wax boobu seen ko xëy ma caat doo mën a mokkal boo mën a sax waxan am laa boo ma ne waaye daal gis nga doo xam diwlin ji la xamoo ba xam bopp jën yi la xamoo kon daal mu ngi noonu daal gaa yi da ngay wax ba kon da ngay fàttee ni benn jëm sawaay gaa yi nag mag ñi moom dal ñu basé koo ci ni kan fan la yemal sax xamat li mel noonu li mu lay wax mooy kon jumtukaay yaram am amatu xëy bi ko yonente bi gisee alayhi salatu wasalaam mu mel nii mu mel nag ci la ko yonente bi tànn nag bi aazami muhimmatin wujidat fi hada al qawli kulli ala wa hiya kitabatu alwahyi alladi yatanazzalu ala rasulillah yonente bi ne ko yow mii ni ma la gisee sakkal bi ni mu yoree kaay ma tànn la mu ne ko loo may doye mu ne ko dama lay tànn ci poste bu gën a rëy ci bu ñu ma taxal ni mooy alquran ji wàcc ci asamaan di ñëw ci man nga di ko bind allahu akbar muy teraanga joo xam ne dama ni lu rëy a rëy lu rëy a rëy zaydun daf doon jéggee ci làmmañu yonente bi alayhi salaatu wa salaam di bind kookom ak mokkalam amul yonent ndax alquran di kat rek koy xet yee fekk lay jéggi ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam di ko bind su ma defee noonu nag yàlla di ko defal loolu laa sukka ne ay tawfiq yu bari ñu ne ko leen saxaaba yi dafa yàpp ndax alquran ji balaa wasaaro ba gars yi di ko mokkal mu yegg fenn bi day fekk Seydou moom waxuma la mokkal na ko waaye fas ko bind fa ndax koo xam ne sama xelu bopp rek da ngay mokkal boo bindee ko mu gën a moom Seydou moom kii ku baax la ku ragal yàlla la woon parce que gis nga baax ak ragal yàlla soo ko amee suñu borom dafa am yum lay fayee aajilan qabla al axira bokk na ci mooy léeg-léeg sa kàddu nit ñi dañ koy lekk dañ koy rek keroog loolu saxifata bani saay saayida mooy gis dañ doon fal assahaabiyul jalil abu bakr siddiq yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatu na bi mu faatoo ci yoor yoor ci suba si sahaaba yi ñi taxali ko seen sago ñi mel ni ñu gox ñi di wax ay wax Omar ibn Xattaab taxaw fële naan man moom dama ci dul boole sama yoon damay xaar kenn rek ñoo yonent bi faatu na ma faatu na nga fekki ko yow kenn ñi moo wax yonent bi faatu na moom boo gisoo xamal da ngay wax moom jaajëf na te sa taw ku toll ne yonent bi ñu naan faatu ne yonent bi dafa dem jéeyal ci boromam comme ni Moussa defoon ci arba ay lay la ñeent fukki guddi dama jéggati ngeen wax ko ngeen ci xam Omar ak ni mu respecté Aboubacar nga xam ne Aboubacar Omar moo leen ñaan yal na yàlla soppi ko mu nekk aw sawar sax ci dund Aboubacar ndax fonk Aboubacar loolu lëy xam nga ni kooku ni mu ko fonkee Aboubacar ñëw ni ko hey Omar toogal ni ko tooguma Omar xel mi ñëw fi Aboubacar daal di romb ndànk fekk boo fanaanul ci ci yonent bi dëkk waaye mi ngi fanaan fu ñu tuddee kon mi ngi mel ni fii ñu dëkk ak sa buntu dëkk ba nga xam ne soree na bi mu waree sa kon ñëw daal di dikk fekk mbooloo mi mu xëtt mbooloo mi dugg ci biir fekk yonent bi ñu ko tëral ci kawlal bi alayhi salaatu wasalaam aw bakar daal di koy muri xool ko xoolaat ko foon ci bi daal di jooy ko allahu akbar خبت حيا وخبت ميتا والله لا يميتك الله موت حي tey nga laajte baax bi ngay dund tey nga laajte baax bi nga faatoo ñaari deewam doo ko dee gala yàlla digoon mooy inna ka mayitun moom nga dee tey daal di génn ànd ak dal dëgg la loolu yaa ngi wax nag moom dëgg yàlla moom ñu ngi jooy nag moom waaye ni muy jooy jooy jooy am na maîtrise maîtrise bi mooy xutba nit ñi waar leen delloo ci waat leen ci yàlla ñu leen hey ku doon jaamu Muhammad Muhammad moom faatu na moom la ñuy waaj a defar pour suul kii moom du fi ñëwee ku doon jaamu suñu borom suñu borom moom mi ngi fi du faatu daal di jàng aay bi wama Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul awa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum xamar ne daal dañ maa faat dama daal kon dama jékki-jékki ne gugum ci suuf xamul du ko toog xam nga lu mu doon laaj ndax aay gi ci alquran la bokk wala déet te fekk bokk na ko moo xamal na ko loolu day loolu day dale nag day dale léeg-léeg mbir mën naa am ñu fàttali la benn wax boo xam ne dafa mel ni yow xaaya bi moom bi ngay xalaat daf laa réeroon ah Mouhamad day faatu innaka mayitun wa innahum mayitun yow mii Mouhamad da ngay faatu ñoom ñii dañuy faatu ëllëg nga dajeeg seen kanam borom ah Omar nee na ci la mel ni daal affaire daal mu réer ci léegi sama xel bi ma correct waat nag muskila bi mooy ni ñuy def yonent bi dañ koy sang dañ koy sang dañ koy suul loolu buñ koy sang dañ koy summi ila axiri cooway ni pur boobu rek saxaaba yi mel ni kenn ku ci nekk xam dajjeexu da la dikkal xam nga dajjeex ah nga mel di dajjeex ak nga mel daal di ngay dajjeex di waaj a daanu ci suuf waaw bi ñu defee loolu ñu dégg benn baat baat bi naan leen sang leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci kaw yéneen ñi bu ko kenn suñu ñu daal di xëpp gisuñu kenn ci kenn xàmmeewu ci leen waxtaan yi ci la Ali jóg botom Abbas ak Sufraan ak Fadl ibn Abbas ñoom ñoo ñoom ñeent ñoo ko doon sang Sufraan doon leen jàppale ñu sang ko ci kaw yére yi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuñ koy tuuli saxaaba yi ne ab yonent daa jëgaloon bu mu faatu nañ ko suul ni laa fii nekk Aïcha la dañu ne même bu nekkee nekk Aïcha ñu daal di wax ci biir nekk suul ko loolu indi tey nga gis masjidu nabawi xabru yonent bi ne ci biir te loolu waxoon na benn xutba leeraloon naa it nam def ba dugg ca nga xam ne da koo fekk ci waaye mbir ma nekk doon loo xam ne cosaan la te tey dañ ci dee dugal borom xam-xam la ko fekkee woon xam léegi nag suul nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi waaye léegi li des mooy kan moo war a nekk nag xalifatu rasulillah bu ngeen fàttali ko ci dundu Aboubacar gisoon ngeen ay tegtal yu bëree bëri yu doon wane ne Aboubacar moom moom la yonent bi sallam wax bal sax nag benn ne ci bu jëntalu dundam ci cat la ñëw na am lu doon di jëm ci yonent bay dem ndaw si mel dafa comprendre ni kii feebar bu ma dikkati mën naa fekk mu faatu mu ne ko waaw yonent bi su ma ñëwee di fekk ma la fi lu may def mu ne ko boo ñëwee di fekk Aboubacar alxaafid ibnu kathir Abu Bakr ibn al-Arabi imam ibn al-Qayyim ibn Taymiya ak ñeneen ñu dut ñoom ci ñeneen jiitu ñu leen mujj tegtal yooyu ak yu ni mel bokk na ci ñu sukkandiku wane ni kon Abu Bakr moo gën a mérito xilaafam ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam Abi Saïd al-Xudri nee na bi yonente bi faatoo dëkk bi ansaar ja di nekk muhaajiru ndax xam ngeen ñoom ñoo gën a jege yonente bi alayhi salatu wasalaam waa lansaar daal di jóg benn waaye xutba ci ñoom daal di ah comme ñun ñooy waa lansaar ñoo dalaloon yonent bi yonent bi faatu na ki ko war a wut ci ñun la war a jóge muhaajir yi ñu jigéen ma dina am ak yonent bi déedéet ñun ñoo ñëwoon fekk ci leen te yonent bi ci ñun la bokkoon kon ci ñun la yonent bi war a jóge soow lu ko dëkk bi nag tàngaat yeneen xeetu tàng bi bokkut ak yonent bi faatu na alayhi salaatu wasalaam coow li bari lool bi coow li bari ba doomu aadama yi kenn amut maîtrise ngay dugg mu saabit daal di vraiment donte gone la yëpp mérito naa ci li tax mérito naa ci mooy alquran ji doon orienté nit ñi nga xam ni mag na ki ko doon bindal ka fi nekkoon maa ngi jàpp ne boo jugee di wax danañ la déglu ndax dañ koo ormaaloon lool زيد بن جبته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصاره وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره dëgg dëgg neex yàlla yonent bi ci muhaajiru ni la bokkoon ñun ñoo nekk wala tax di ko dimbali kon nag lay maante mooy sa ka war a wóotu da bokkaat ci muhaajiru ni ñu continuer di ko dimbali ca kam yàlla tax ñuy def xanaa gis nga léeg-léeg nag maanaam baatu dëgg dafa mel ni suñu borom da koy wax gis nga léeg-léeg nit day wax ba weer boppam day wax ba weer boppam bu dee kii dafa dox li muy wax xanaa tey ko fekk effectivement tey ko maanaam yàlla moo koy wax loolu koy weer loolu waaye dëgg dëgg tamit léeg-léeg suñu borom da koy jaarale ci làmmi nit mën na nekk sax innocent bu xam dara mën na nekk innocent waaye lan wax lu wér la mooy li gars yi nekk di naan mbokk daa ñëw fekk ñuy jullee néew bi mu ne waa ko lay kii ñu ne kii lu ko dal ñu laajee mu ne man de ko ma ko ko lay waaye wóoruma ci yàlla ah kooku daf naa wax dëgg wax na dëgg de kii lu ko dal mu tëdd ñu ne daa dee man de ko ma ko ko lay waaye wóoruma ci yàlla waaw wax na dëgg de wallaay wóoruma ci yàlla tey mus mus da moom la xam nga yu mel noonu kon léeg wax mën laa génnee ci nit fekk wax lu wér wér wér donte comme génne sa ko taxul mu demee noonu kon noonu aw man dakk daal di ni ko jazakum allahu xayran ya maasara al ansar wa sabbata qailakum law qultum xayra hada ma salaxnakum mu ne yéen waa lantaar yàlla yàlla fay leen yiw te dëgëral leen te jàppale nag seen waa ji ndax li mu wax mooy jiwéen bu waxoon leneen lu moom la mu wax dugg ci noonu ndeysaan ci la saxaaba yi jub daal di jaayante aw bakar fi xaqiqatu bani saaida dañ jaayante moom la daaw tudde amirul muminin yaa xalifata rasulillahi lañ ko doon wax yow xalifa bi yonente bi ñu dem ba ab jiir ba amar xalu huwa awwalu man nuqima bi amirul muminin amar lañ njëkk ko wax amirul muminin loolu mi ngi tàmbale su moom ba ginnaaw zaydul saabit ah أعظم منقبة لزيد بن ثابت جمع القرآن وكفى بهذا الجمع شرفا وكفى بهذا الجمع شرفا teraanga ji gën a rëy su ñuy bàkkee Zeydu mooy dajale alquran Zeyd nag doy na dëkk waaye bu leen fàtte ne Zeyd daa ñëw loolu de gis ngeen gis ngeen xeetu racistique bii am xeetu racistique bii am wallahi amuma jëmm sa salam ndax bay ba amay ñu xatat ñu ko di gente gente not saydu gente not aw bakar nefa omar nefa ni ci weex ñu nefa ni ci ñuul ñu nefa yonent bi bilal la tan ni ko non tan mbir mi du mbirum mbirum ay ñuul ak ay weex déer la fadla li arabin ala ajami illa bi taqwa la yaqulu allah kii weex na kii ñuul na saydu saabit dafa ñuuloon kukk bu kaamata doom ji xonk tur xam nga suñu seetaan la woon ah ah waa ji almudala fii kër ba mu ñëwee fekk leen ñoom ñaar ñu tàng muy zaydu ak doom ji xam ngeen ne am nañu lu ñu tuddee alxiyaaba ah dama xamul baat bi ñu ngi koy waxee ci wolof waaye mooy am na nit ñoo xam ne yàlla daf leen a man dañoo dañoo xam ne xam askan mën nañ laa xool sax alkanam rek ñu ne yow xanaa yow dangaa bokk ci dara fekk dafa mel ne dañuy xam dara loolu lu am la comme ñu xam ne askan amee mu xool ñaari tànk yi bii ñuul tukk bii xonk sor bopp yaa nga muuru waaye lan la wax mu ni ñaari tànk yi de xaw ma ban la ci waaye benn day bàyyi moo ci def te gis na xamu leen gisu leen xamul ku tàng waaye tànk yi la xool rek ñuulaay ba daal di am xam ne loolu xam-xam la kon aw ba kii zayd ibni saabit radiallahu anhu man xabam bi gën a rëy mooy dajale alquran xam ngeen ni mbokk yi abubakar bi ko jullit ñi paree ci tënk bu gën a gàtt rek ma wax taariixu jamael quran donte loola nag dinaa sonn sama bopp sonn mbokk yi lu mat a xam la lu mat a xam la taariixu jame jamci hada alkitab taariixu jamci hada alkitab loolu xam ko dafay gën a tax nit ci fonkaat téere bi xam mooy lan te suratul kahfi am na ca bind bu mu téléphone ci yuhudul ashab fi jamci wa tartiibi kitaab rahmaan sa dund asmaan bu ngeen fàttali ko defoon naa ca club maa ngi nii tey di ko tënkaat awal bi bi mu jugee mu gis ni am na xeeti lislaam yi xeet yi ñoo xam ne ñoom dañoo murtat génn ci lislaam lu tax ñu génn ñu ne ah ñun de yonent bi la yàlla yónni woon si ñun yonent bu baax la jeex na beneen bi jël sax dootu joxe ci àgg ba lu tax ñu ne xus la yàlla ko ne awal yi tabaxatul tahiru wa tuzakkihim biha yàlla yonent bi la ko ne ko jëlal yonent bi ñëw ci ko jëm jël dama joxe ci àgg Abubakar daal di giñ ci yàlla ndeysaan ak sa waay baax suuf si waay baax ak ngëm yàlla dafa lu ma tànn ko xam mu ni giñ naa ci yàlla ni buñ ma tere woon a jox nos gileem meñ gi ñuy nos ci bakkanu gileem buñ daan jox yonent bi alayhi salaatu wa salaam dinaa futtee ko xeex ak ñoom ba jot ci Omar ibn Xattab ni ko dañoo xeexul fenn ndax ne ñun dañoo ashadu an laa ilaha illa allah ashadu muhammad rasulullah naka ngay seetee kuy wax ashadu an laa ilaha ashadu muhammad rasulullah aw bakar ni ko yonent bi nee na alayhi salatu wasalam ku teel na ashadu an laa ilaha illa allah ashadu muhammad rasulullah sahaada yëpp yëpp ñëw fonk ci lislaam yi ñëw nee na sa deret xaraam na sa alal xaraam na ci lislaam nga bokk kenn du la rey illa bi xaqiha lu dul àq bi lislaam moom mu ne ko xama parce que daa bokk ci àq bi lislaam moom xabar ni teg moom yàgg mu ne aw bakar yaay nga la wax la moo tax gis nga mbir mi jërul maay kilifa maay dogal ak maay kuloo ba déedéet ànd la dal rek nga wax ndax nit ki bu yàlla defee ci moom ak bëgg mbaax boo ko waxee luy yenn maanaam dana jël gaa yi ko war duñ génn dëkk bi mu ni dama ni bu xaj yi doon ñànk laa wax jigéen ñi ne ci dëkk bi di jomam noonu te gis duma dalee génn dem xeex xaru bu rinda bi ñu génne dem xaru bu rinda mu beneen ko nag kazab ma nga toog fële moom nan ab yonent la mu ne mosoon na maa teg ci yonent bi alayhi salatu salaam mu xaaj yëf yi ñaar ko bàyyi bàyyi la ban ni la boo xam bi xam nga xam nga xam nga lu mën a jurum lënt mu tayli ba dafa ñëw am na ci ay riwaayaat bi bi ne katir ñu ngi koy nettali ci bidaaya wa nihaaya gaa yi comme dañoo konkoon mu tayli ba ndax ay kéem daal la doon faral di woote woo yonent bi alayhi salatu salaam gaa yi ñëw bay ñi bi mu joxe ay kado ñu ne ko waa doo jox ka ñu di xaar suñu bagage bi muy kan la ñu ne ko mu tayli ma la mu tayli ma boobu kazaab amagu ci yonent bi ne ah waaw lu tax loolu ñu ne moom moo ñuy waxtu suñuy bagaas yonent bi ne ah kooku de du baax la gis nga de ndax mën wax suñuy bagaas gis nga ba commencé woote bi dafa woo gars yi ñu ne xanaa bi yéen a seede woon ne yonent bi seede ne du baax la loolu da nga mën a wecc benn waaye bu ñuy wax rajal wala rajal ibnu an koo bokk suñu koy dëkkal la gannaaw man bokkoon naa ci te bokkoon na saxaaba yi rajal allahu akbar yonent bi daal rabu rajaal toog abu abu abu hurayra toog ak beneen saxaaba muy ñett yonent bi ñu leen yéen ñett ñi am na ci koo xamante ni aw dégg jëm ci biir safara mi ngi toll ni moom daal di ko gis nga abu hurayra abu hurayra radiallahu anhu wa ardah ah bi ñu toogee ba mu yàgg ñu ñëw ni ko diw faat na diw ci ñett ñooñu diw faat na day xëdd ndax ci mbaa du man lay doon ndax Abu Hurayra ak Rajal ak beneen waay subhanallah benn ba amatul maîtrise di ko pédal di ko di ko te xoolal malgré li ko yonent bi wax lépp waaye keroog ba nga xamante nii nag Rajal bokk na ci nga dëggal Musaylima nag ah Abu Hurayra doo ko firéeku moom mu ni kon tey mbir maa ngoog jeex na fi jëm sa yëf laa moom firéeku delluwaat ci biiram gis nga jullit nii la war di doxee loolu ñu daal di dem xeexe bi ñu xeexee ba noppi nag xeex bu gudd la comme ni ngeen ko xamee feeñoon na ci dundu Aboubacar Zayd ibn Saabit nee na bi ñu demee xeex yi ba ñëw nag te xasot yamaa ba ñu xeex ak sugay fatam yamaa yi ak baru bu ridda mokkal ko ci alquran yi nag ñu ko dee bari lool mokkal ko ci alquran yi ñu mokkal alquran pour yi ñu ci xaatu bari trop loolu Aboubacar daal di woolu sugay fa ni ko kaay bi mu ñëwee mu ne maa ngi fekk Omar ibn Xattaab taxaw Aboubacar ne déglu Omar daal ni Aboubacar jullit ñi demoon nañ xeex ni dama ñu xeexee ci yamaama ñu bari ci ñu mokkal alquran faatu nañ gis nga buñ ko jàppoo nii te alquran ji jéemoon ci fexe ñu dajale ko su boobaa alquran ji nekk lay def Aboubacar ni ko dajale taw loolu tey duma ko rek yonent bi dund ba faatu te dajale woon alquran man Aboubacar ma koy dajale xalaatuma ko rek xamal ni ko toogal ñu waxtaan gis nga de xam nga defoon na ko ko benn mu doole la ko moom xamal def yelloo ñoom ñaar ñu toog di waxtaan te lii am na ay détails yu xóot yoo xam ni xam naa ne xam ko lu am solo ndax léeg-léeg nit bi daay danañ ñu xatee nii da ngay dégg ñu naan waaw yéen a wax bidaa bidaa saxaaba ñu ko ñoon loolu nag xëy na xam ko dafa am solo ñu ngi am benn waxtaan bu yaatu woo xamante ni ñu ngi koy waajal defal ko ay mbokk si bunt bii mooy yoon yi nga xamante ni moom la jaar moom alquran ba mel ni mu mel ci jamono yent bi jamono saxaaba yi jamono saabi am ila axiri yi te loola mataay yi dañuy yëpp dana sele waaye ala ko la xaal loolu du bidaa déet déet du bidaa ngir ay mbir yu bare bare bokk nañu rek yéen sax ne woon na aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaai rachidin ñaareel mooy awal rek omar ñoom saxal nañ ni yonent bi terewul woon ku ko dajale déet terewul woon ku ko dajale parce que mbir mi dem na ba jeex dañu koy mokkal ña nga ba ak ak ak ak ak ak muntrati ak nag ala moo gaar mu tax ñu jàpp ne lii kat war naa mën a nekk mu dugg ci al masaail al mursala mooy borom xam-xam yi dem ba tëju gis ni masala mii kat xeet yu aajowoo nañ ko ni càmbar gisuñ tegtal yoo xam ne yonent bi dafa koy tere tey gis nañ ay tegtal yu xenan loo waxtu téere bi ñu daal di jël masala moom ak yeneen détail sax yu gën a xóot yooyu loolu Omar nee na Aboubacar nee na ci la ma Omar doog a convaincre waaye mbokk yi li ci dégg ni xool saxaaba yi ñoo mënoon a daw bi daal dajale alquran li ci nekk ci ay mbindal Zayd moom it muy dajale alquran man de li ngeen di wax man dëgg ma convaincre Aboubacar wax na Omar wax na mu ne déedéet lii man convaincre ma alquran dajale mu ne gis ngeen ngeen sant ma fekk Aboubacar dafa wooloon ko sant ko liggéey mu ne ko ngeen sant ma montagne bi gën a jiit ci dëkk bi ni ma gërëm ko moo gën a yomb ci man ngeen sant ma dajale alquran ñëpp rek ngir daw bi daal te moo la gën a xam ne dañoo xool gën a ñu bëri ñu ngi ci loolu Zayd daal di wax loolu Aboubacar Aboubacar ne ko gis nga yow li ma Omar wax rek laa lay wax daal di koy wax wax ko ba convaincre ko ne ko innaka saabun aaqil laa tastahimu te lu am solo te ndaw naa ko innaka yow mu ne ko saabun jeune nga boo xam ne aaqil ku muus la laa tastahimu ko te kenn musulaa tuumaal du ay fenn du wax du jël yëfu jàmbur ak am solo gis nga tànn bokk na ci li ñuy tànnee mooy tànn ndaw ku am doole te muus ñor am xel te làmminam tey kenn du ko tuumaal ci dara loolu nag laa koy fàggu sa bopp de na jibril du wàcc asamaan du maama laa koy jëla ko defaral déedéet nee na noonu gars yi commencé di wax ak man di wax ak man ba convaincre ma ndeysaan loolu mooy aljamaa al uula dajale bu njëkk li dama koy tënk rek gën naa yaatu loolu Zeydu nee na ma tàmbali am ay gars yoo xamante ni boole nañ ko moom ñu dajale alquran ci leneen nga ñëw ci benn waay ni koy looye rek mu ne man kat bindoon naa ko ci dem nga dem ci benn waay gis moom ba mu reyee gileem daawam ba ba mu gisee genn yàq bu tàcc tàcc yàq la daan jël daan jël alquran bi denc ci biir néegam nga gis benn waay boo xamante ne nii ci tàndarma yi kër yooyu ngay jël xoos ko ba mu jekk bi di ko alquran bi nga gis koo xam ba mu demee tool daaw dafa gisoon benn xeer xeer bu tàcc woo xam ne mën nga cee bind saaw lu mu yëkkati xeer wa ëndi allahu akbar mbokk yi lii boo ko xalaatee wallahi ci ngay xam ne mbokk yi ñun doyalal bii ñu doyalal alquran ci di ko bañ a jàngal ci ko sobantal nga xam ni koo ci laaj koo ci yem bu la ko waxee ngay bëgg gis te nga gën a jàng alquran bu la ko nit ci waxee rek nga bëgg wan ko gannaaw bu ñu xalaatee ñee nañ dajoon ak mbir ma nam nekk wala ni mu jëtoon ak coono ba dajale ko wallahi dana tax mbokk yi ñu gën a góorgóorlu waaye nag xoqat daalik ndax saa bu kor baree tëgg lay jot kaamel yéeni waxar kaamel yéeni waxar tamit moo tax ñun ñëpp daal di jaaxaan bàyyee waaye bi ñu dajale alquran zaydu muus xam nga dajale alquran gars yi mën nañ ci dugal ci bokkut léegi bi ñu yëgoon que affaire yaa ngi ñoo mën nañ ci dugal ci bokkut zaydu tër benn plan plan bi mooy aaye bu ñuy dugal ci biir téere bi day am ñaari téere am na ci borom xam-xam yi ku mel ni al imam suyuti ay xam ci ulum al quran ak yeneen borom xam-xam dañuy wax ni ñaari teede yi mooy ñaari nit ñaari nit yu teede ne lii wér nañu alquran la ci la bokk ñu doo koy bind ci kaamil bi am na yeneen borom xam-xam yu déedéet ñaari teede yi mooy mokkal ak bind mooy tey boo indi woon tam mokkal ni man mokkal na aaya nga tari ko kenn du ko ci dañ la koy delloo ba wëri keneen même bu ne même aaya bi la amuñu ko dañ koy wëri keneen kon da ngay ñëw indi sa mokkal ba nag indi ko bind wala yow nga indi sa mokkal benn waaye indi bind ba ci lañ war a yegg ci aaya bi mu ci suratu tawba dana mooy laqad jaakum rasulun shadiidun alaykum ñu wër wër wër gisuñu ko ci benn saxaaba la ko gis bu ñuy wax ku gay naka ñu saabi mooy ci yent boo xam ne yow kat boo taxawee seede ci xeet yi sax seede mat na ñaari seede ku gay na moo ko indi kon sahaaba yi dañ doon lekk nga bind ak nga mokkal ci lañ dajale ba alquran bi yegg te it nag foofu seetaan bu rëy am na nopp est ce que xam nga ni alquran sahaaba yi yittewoo nañ ko yittewoo boo xam ne topp nañ ko ba xam saar wu wàcc wa ko jiit waja ko màkk la wàcc madina la wàcc suba la wàcc ngoon la wàcc guddi la wàcc bëccëg la wàcc da doon taw dafa naaj ah ñi ngi ci tukki ñi ngi ci xare allahu akbar gis nga façon yi yëpp moo la wax nag amul ci benn aaya bu rot ci alquran lu du borom xam ko topp nañ ko ba xam ko ni saar yi wàcc màkk saar yi wàcc madina saar yi commencé màkk àggee madina saar yi commencé madina àggee màkk saar yi ci tukki la wàcc ci tukki la commencé àggee sax ba ñettee saar yi ci dëkk bi la tàmbalee àggee ci dañ nekkee ci tukki ba façon yooyu yëpp benn bu ci nekk ak naatib bi dafa na sax bii man suux la moom la ñu na saxal façon yooyu yëpp ay xeeti xam-xam la yoo xam ni tey ndaw yi war nañ koo jàng moo tax li ñuy xaar dafa bëri man laa waxoon genn ko ne ko mokkal ma ne ko yaa ngi doog a feri ma ne ko fi ne yaa ngi doog a feri dina du la doog a góorlu xam nga ñu moom ci sama kalaamaante da ngay jàpp ne fi nekk nii moom yaa ngi man suude sa mat fekk mbir mi du loolu de alquran boo ko mokkalee yaa ngi doog a feri dina yii ma la wax yëpp mi ngi lay xaar te lii ci genn xànn kese la muy alquran sëriñ bi daal di commencé nag ngay daal di séddale mbir yi ndax ala ci limaari nee na ci jamono yi sàggalam ñeent nit ñoo dajaloon alquran muy nu mu tuddati ubay ibni kaab muaad ibni jabal zayd ibni saari ak abu zayd donc nag borom xam-xam wax nañu ëppoo na loolu mat na juróom ñaar am na ñu ne sax ëpp na juróom ñaar dafa fekk ñii dañoo gënoon a sëfri ko wax na dëgg ndax tënk ko ci ñii kese la ak mboolem saxaaba ya nañ daree day laaj nga wër ba xam ku nekk ndax lan moo xalak lu mokkul su loolu mooy li gën a dëgër mooy ñii dañ kaa gënoon a ko kese kon léegi mu saa rek noonu la def ba dajale alquran bi ci fi nga xamante ni moom mooy ci jamonoy aw bakar yeneen masala bi mooy ci jamonoy Osman ibn Affan ci jamonoy Osman xam nga dafa am yeneen xare bu xare bi waat loolu moom ci tënk mu gàtt noonu rek bi ñu demee ci xare ba am ay jullit yu bari yu fa faatoo ci nag waaw dañu ubbi Saam Azerbaïdjan ah ak ba nga xam mooy Arménie te côté Iran am ci saxaaba yi ñu bari ñoo xam ne faatu nañ ci waaye bi yoon nag dañu ci faatu xam nga bi yoon lan la ngir mi daal dinaa ko indi ndaxas nag ndax Ali am na façon jàng Abdoulaye Masud am jàng gaa ak bi bi nga xamante moom la Aboubacar ñoom dajale woon mbir yi dafa commencé nag léegi man damay jàng benn aaya benn waaye ñëw jàng ko njàngin bu wuutee bi ma ko jàng ñun ñaar ñu ko ñene loolu si jamono sax la naa Omar ibn Khattab romb na benn wàcc wetu marché bi muy jàng jàng benn aaya Omar ñu ne ko lu ci xoy bàyyi ma bàyyi ma yéen ko jàngal mu ne bu ma la bàyyee dañu àgg seen safa kon yëpp la dañ yegg ci yéen ci sàmbalam xam nga Omar moom dafa tàng xolam naa def bi suñu alquran bi ni yàq rek yéen bi ni ko jàngal mu jàng yéen bi ni ko Omar jàngal Omar jàng mu ne ko Omar sa jàngin baax na waa ji sa jàngin baax na ñaar yëpp maa ko jàngal ma ne alquran dafa ñu jàngin de moo tax boo jàngal nag moo laa bàjjee toog fii ah léeg-léeg nga gis baat boo xamante ne yàq dafa jàngal ñu maas ko baax ah wala nga jàngal ko tax ñu maas ko yàq nga gis boo jàngal yëpp fokk na ñu ni fokk fokk na ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yow da nga jàpp ne di am njuumte la fekk déedéet alquran bi dafa may jàngante ak yombal yu bare bare bare bare am na ay baat yu wuute wuute ñu gis moo tax xaw nga jàng qiraa yi doo nga xam di sax ak di sax loolu lu am solo la moo tax ma ne ku mokkal da ngaa fekk ci loolu bi mbir yi commencé am nag ba mbir yi am coow ci léeg-léeg xale yi dañuy daje di ko di xeex lu tax ñuy xeex kii sëriñ diwo ko jàngal kii sëriñ diwo ko jàngal xale yi ku nekk boo taree saar sàngam na nga koy jàngee ak keneen na nga koy jàngee di bokk Xudayfata ibn al-Yamani nag rëpp dal aw fasam dik su Osman ni ko Osman adrik hadihi umma Osman nag jot na nga wax ci mbir mi lu tax mu ne ko gis ne nit ñi ngi commencé di jàppante ci seenam jàng kenn mbir mi yegg na ci ba yéefal loo ko borom kon garaawoon na baax ci ñu réer ñu xam nga réer ñoo def lu waaye saxaaba yi ñoom yéebare lañ ko xam nga loolu nekk loolu seen biir Osman ibn Abbas ni waaw bañ ko dajale ci jamono Abubakar anam woon ñu ne dañ koo téye woon ba ci jamono Amar ibn Khattab te du Amar di paase Hafsa la ko def mu ne yónnee leen ko Hafsa ñu jox ko Hafsa jox leen kaamil bi Omar daal di woowaat Zayd ni ko yow la ñu wóolu woon yow la ñu wóolu waat fii kilal jamaa yi kon léegi na lool wo Osman woolu Zayd ni ko yow lañ wóolu waat ci ñaari ñaari bi bi loolu amee Zayd daal di commencé defar alquran bi nag ñu def ko ay mushaf si misaal bu doon misaal bu ma bu ngeen mën a comprendre yabal ceeb benn kaamil yabal xawla benn kaamil yabal xar benn kaamil yabal nangam su ko defee kaamil bañ yabal fee mooy départ ba kuy copier te ngay copier loolu tax nga gis ñu bind al mushaful osmaani parce que gëne loolu ñu ne moo ko jagoo nit li woon naa ci doo osmaani na abbas loolu ci mbir bi commencé nag ñu daal dajalewaat ñaareelu dajale gi am na ay dajale yu bari parce que xam ni jamono sa sax amoon na dajale jamono yëpp bi amoon na dajale am na dajale ba dajale caabi bi te sa façon dajale yi moo wuute am na ñoo xam dañ koo dajale woon dajale bi mokkal yonent sa salam dajale na ko ci boppam dajale bi mokkal parce que nokku ñu ko talaatan sa ah la tuharrik bihi lisanaka litahjala inna alayna jam'ahu wa qur'an jam'ahu mooy dajale ko kon dajale gi amoon na waaye maraaxil daa wuute في العهد النبوي وفي العهد المكري وفي العهد العمري وفي العهد العثماني في العهد ما هنالك kon yooyu xam ko lu am solo la ndax daf lay jëndal dimbali ci ulumul Quran loolu kon Zayd ibn Thabit noonu la meloon waaye comme bi ci mujj mooy Zayd fan la ko saxaaba yi tegoon radiyallahu anhu Zayd mbokk yi saxaaba yi ormaaloon nañ ko trop Anas ibn Malik nee na yonent bi nee na aqrabu ummati Zayd ibn Thabit ki gën a man miiraat ci sama xeet mooy Zayd Jaafar ibn Burqaan mu ni dégg naa imaam Zuhri nee na su fekkoon te ni du woon Zayd daa bind miraas jàngale ko maa ngi yaakaar ne miraas dana dee ñu suul ko comme ni di dee ñu suul Umay ibn Aswad nee na Malik nee na te jamono ja jamono ju yàgg ja day ginnaaw Umar ibn al-Khattab Zaydoo nekkoon imaamu nit ñi waaye bi Zaydu faatoo xel ibnu Umar a nekk imaamu nit ñi Abdullah Ahmad ibn Abdullah al-Ajali nee na nit ñi kat ah ci njàngum zaydu dañ cay sukkandiku waaye ci miraasum zaydu dañ cay sukkandiku masruq nee na asxaaba ibn masrud ñi doon def ay fatwa nee na ñoom te def jamono sa salam ñi doon def ay fatwa muy omar ak ali ibn masrud ak zaydu ak ubay ak abu moussa mooy ñooñu ne nekk ñi nga xam ne mukk yi dañ ubbee ci wàllu diine abdullah ibn abbas nee na mokkalkat yépp ñi wax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñépp seede nañ ni zayd bu ñuy lim borom xam-xam ci ndom mbokkal ga lay nekk loolu man xamu rëy la lii moo taxoon nag saxaaba yi ormaaloo joxoon ko sut trop yéen a ngi fàttali ko abdullah ibni abbas benn bis daa ñëw fekk zayd di dem mu daal di jël numtrati bi nga laaj laabe gi leen bi di ko ormatal seen wàllu ci wàllu yow ak ki nga àgg sa siin sa doogaay yonent bi alayhi salatu wasalaam ngay def lii muy inna hakada umirna an nafaala bi ulamaina mbokk yi dañuy jeexee la xam-xam nga fi am barke annaas sawaat yi nit ñi ñoo yem wax naa leen ni wolof yi nee nañ bi ñëpp yawoon am nañu gedd seeni seen kon ñaareel bi mooy nit ñi yem te suñ borom dëgg la annaasu sawaat yi ñoo war a yem ngënalante ga du am waaye nag wallahu faddala ba'dakum ala ba'd yàlla moo gënale ñenn ci ñi ci def ci wàllu wërsëg ci wàllu xam-xam te dafa bokk ci maandu te mooy nangu def def suñu borom lim añaan laa ko far yéen borom subhanahu wa taala yutti hikmata man yasha moo koy jox ko soom wa yutti hikmata faqad utiya khayran kathira wali ngay ñaan kay wasal allah min fadli ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال ناصرين مسكوا وللنساء ناصرين مسكوا واسأل الله من فضله sir ngay ko am naa ngay añaan ak yàq dara te wax yu kenn xamul naanu yàlla ngën a liñ defal ji mu defal la ko moom daa yàq rek suñu borom ko yàqal rek mu jël bi ah léegi nga fi nekk di safara di delloo suuf seen seen bopp mu jël ko bàyyi bu guddi nga jub nga ñaan yàlla li nga bëgg was allah min fadli allahuma inni asaluka min fadli naa la loolu suñu borom may la la ngay ñaan insha allah kon loolu nit ñi dañ koy xam ñu xam ni ba xam-xam bi am barke mooy di borom xam-xam yi ndom ngay xam-xam yi di leen formal waaye ñun nag tey suñu jamono lay daal ku gën a nekk ci yàlla gën a xamal ah ngeen ciy def benn waaye mos naa toog laaj ma ne waaye soo Abdoulaye ma toog naan moom mooy imam sax yére bi di ko sëkkal waaye waaye waaye mooy kan mooy comme ñun li ñuy def rek mooy comme ñun li ñuy def rek defe naa mbokk mi moo ko doon misali ab jamono mbokk mu jiite am ku nag waaye kii sëkkalul fii nangam nangam mbokk ma bañ ko laajee mu ne yàlla ni ko ci xam ne ni keroog yére bi ñu sol ko jiite amul ko daa am allahu akbar mbokk yi kon bi kenn yow xutba yi jëriñu woon parce que réew la ngay wax waaye image bi ngay xool ko kenn xooloo la ko kii li muy wax dama ni iblis saay saay ba saay saay bu woo mooy iblis te sax ba mu joxee xam-xam jël nañ ko xoolal ko benn bi ci des mooy xoolal li léegi bàkkaar te boo xamoon bi am na yoo xam ne bu mel ni ci lëri nduus bàyyi mu dem yàlla digal la pour ngay àtte jaam déet yàlla moom huwa ahsanu xaakimi mooy àtte waaye ba Amar ibn Xattab déggee ni waa jaa ngi nekk fii naan pourquoi ci ci tamit Abdoulaye Masoud dafa amoon góom bu métti góom bi la doon bañ ah muy génn xet ba nit ñi di ko xeeñ moo tax mu di ko muur ba ko Amar jàppee da koy yeew ci foto gàttal ci taw ko ba mu wër ne ko suñu borom xam-xam ba ma dégg ci kenn di waxatee ñoom ñii rek naan kenn la allahu akbar ah ndeysaan Omar Omar waay waay Omar yaa ko waroon a nekk waay xam naa bu fi nekkoon day dana bari ñu tudd seen ndigg ñun ñii ñëpp ragal nañu tudd suñu ndigg ndax ñàkk orma ak ñàkk wéyee ak ñàkk yëg ak ñàkk fonk moo tax lu ñu jural xam-xam bu ñu tedd barke bi ñu nekk dégg nga xam-xam bi ñu tedd barke bi ñu nekk téere yaa ngi di tey la gën a bari internet baa ngi fi di seytaane bi jongalaate lookalaat ñu jox la ko ah waaye barke bi ñun ñëpp keroog bu ñu gënee néew keroog la gënoon a am baraka lu tax nit ñi dañ ko doon jàng dañoo normal ñu leen ko doon jox benn waaye ñëw na di jàng ci sayt bi xoolal ñun boo ñëwee jàng ci ñaari yoon teekoo ci sayt bi nga commencé waaw kii dafa gën a dox la ah waaw li dox yi dox la loolu yaa ko moom lim lay jàngal dañ ko la rek yow lu tëral ci loolu xool ko waa ji ubbi guddi lay sax wala ku jóge dëkk bu sori yow lu ko rek ñu ko ma daal bàyyi yàlla laa doxandéem laa dëkk bi dama doon tàgg si xam-xam mu jël bunt bi dëkk ko fenn si kuje bi waaye ma wax ma tëddoo pare nga dama yee ay borom ni la borom la xamal daal dañ koy xëy rek cee pelal da ciy pelal ci sëriñ da ngay wut dara dëkk américain nga pelal parce que ñun ni ñu wutee ñoom xam nga lu dem dafa ubbi saagam génn ay yéreem nga gën a yow ko jël balaa nga sàng ci guddi def di bàyyi ci suñu bëli sayt bi yow fekk te moo koy expré te tu loolu loolu am na ko xam yu ko war a def ku mel ni soo boobu ab xaj di ko dàqaloo noonu yeeg yooyu yëpp fekk te tu loolu def nit ñi ngir tàggat leen ci ñaw tey laa ko xam imam soxna ibn al-Hajjaj xam ngeen daraja ba mu jaar ba am amir daraja amirul muminin fil hadis kooku ko xam saytu bi yeewu ne ko waaye yow xanaa yow laa mëkkaloon bunt bi dem mu ne ko waaw mu ne ko lu tax amoo jom xanaa lu tax demoo mu ne ko déedéet yow amoo ci man soxla waaye man naa ci yow allahu akbar wala waaw da nga amoo ci man soxla moo tax nga may mëkkal bunt waaye man am naa ci yow soxla gis nga jabar bi nga amee ci moom soxla yaay ñun gis boo amee la nga bëgg kenn dootu la bëgg ci bunt gis boo amee la nga bëgg doo xanaan kooku soxla yooyu xaaka daal di xam xiit boobu marwa ah coono ba métti ba ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yoo xam ne jaay may wax rek ñu dàq la gis ngeen xaalis bi tamit séet yoo xam ne dafa yem na ko eh dugal mu jub ko génn sama xam lu ma def mu ne ko defoo dara wóolu ma ne xam nga imam na daal dafa amoon xaalis mu doon na ko xaalis doon ko yëre yu rafet yoo xam boo ko da ngay dem kii doom buur la egg ci wala waaye lu muy def day dem ca gannaaw miir ba toog الله اكبر ما في فوق باكر فوق باكر فان هذا العلم لا ينال بعز النفس ابدا شاطئ عيننا خم خم bi kenn du ko amee ci nooyu bakkan ak noos ak nongoral comme ñu neex waaye da nga koy am ci toroxal sa bakkan ak ci dooru borom xam-xam yàlla bàcceel la moo tax dangay seen xaddatani xaaris ibn miskin wa ana wala albaam xaaris ibn miskin nekkee na waaye nag jàkkaarlu waaye maa nga woon sa gannaaw di ko déglu ngir ñu njëkk la ku mu jaral doo ma xaalis yaa soxla yow yaa soxla muñal ah nan la torturé nan la méttital nan la xorñoñal ah nan la teg naaj nan la teg poussière ba Abdoulaye ibn Abbas nee na dama daan toog ci naaj ba naaj bi jàpp ma ma toog ci pënd bi ba sama kanam bi doo xam lu muy nuru léegi bu yeewoo ne ma yow doo moom nga yee ma mu ne ko déedéet hakada umirna an nafaala bi ulamaina ñii la ñu digal ñu ne suñu borom xam-xam wala ma kaana ma kaana ah kaana ma raaytu léegi nag ba mu doon am seen gis liñ gis mooy xam-xam bu néew lool waaye barke lool bu mbir yee soppee koo xam-xam bu ñu gën barke bu ñu nekk léegi na saa bi mbokk yi ànd ak loolu lépp nag ku amoon kat la ak nit ñi nag am na xor na te nag loolu lu jafe ngeen ma samay bu la ko yàlla maye da ngay bëri ci dem jamono bu la nit ñi xoolee bëtub yaa ngi ëpp alal wala ñu la xoolee bëtub yaa ngi raw te ngay commencé doo nekk ci ah te nit ñi toog doo fi toog ah doo ko di sax ku toog yenn ak yow ah yow booy wax sax kenn sañu laa dagg ku la jàng sax nga bëgg a mer mel ni yow rasul ne lan naa waaye nag li gën a jafe mooy am ko ba noppi wàcc sa bopp ba leen ñu amoo léegi da doon taxat nit ñi da doon tax ndeysaan dañuy wax ne ku amul fulal la ci xam-xam jàngale waaye bu duggee biir kër day tax comme ni yonent bi ko alayhi salaatu wasalaam kaana li askarin naa waaye nekkoon na koo xam daf doon daawa di jàngale ak di yar li nga xam mooy njabootam noonu la continué radiallahu anhu wa ardaahu ba yàlla dogal bis ba nga xam ni ca la war a bokk nag génn àddina ah jarab la abdulahi ibn abbas wax wax bu kéemaane ah ak abu hurayra abu hurayra mu ni maata al yawma xadru hadihi al umma tey moom fooree xeet bi moo dee abdulahi ibn abbas mu ni tey bu yeboo ngeen xam ni suuli wu leen néew waaye xam-xam ngeen suuli woon allahu akbar abdulahi ibn abbas mu ne yëg leen tey suuli wu leen ab néew waaye xam-xam ngeen doon suuli kon loolu la zaydu dundee nekk ab borom xam-xam nekk ko ragal yàlla nekk ku xitmaal daaw bi loo xam ne li ma tàmbaloon laay jeexalee mooy bu ñëwoon ba àllaaxira ñu dayal ko poyantaal yi ñu ko defal ci mbindam alquran ak jàngale ko rek da ngay jàpp dayo dayo tëkk رضي الله عن هذا الصحابي الجليل وعن جميع الصحابة أجمعين يلا يلا دفع توفيق لن لا يقارن لي من لك لمي ديكرك لا يجب مجيح waaye bu ñu jógee yàlla yàlla defal ñu koy fii mën daa jëfe lu tolloog lan man waaye mën daa jëfe lu tolloog la nga xam moom la suñu borom sant wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain